mais j'ai l'habitude du Sénégal xam nga chance bi ñu am fii on est un état de droit de grand état de droit bi ma nekkee ci état bi loolu la doon wax bi ma nekkee ci opposition loolu laay wax aussi on est un état de droit ñoo koy appliquer c'est des juges indépendant ñoo koy apprécier et les juges appliqueront la loi d'amnistie comme ça ça doit être appliqué maintenant si on doit remettre ça en cause il faut aller à l'Assemblée il faut avoir une majorité parlementaire pour abroger la loi d'amnistie pour abroger la loi d'amnistie. il faut avoir une majorité parlementaire pour abroger ko. mais soo ko amul le juge applique la loi d'amnistie telle qu'on l'a votée. c'est sur la base de cette loi d'amnistie. et ensuite remettre en cause même une loi d'amnistie ça pose problème. c'est possible. c'est pas facile bon l'envisager mais c'est difficile. mais c'est sur la base de cette loi d'amnistie l'actuel premier ministre oui c'est ça c'est pour ça que moi je ne je je en tout cas Sénégal bi man Sénégal bi ma xam depuis 1960 ba léegi mosuma gis loi d'amnistie boo xam ne. dañu ko abrogé gisuma ko te jaaxal na ma ni ñu mën a abrogé loi d'amnistie léegi nag ko bëgg a abrogé c'est l'Assemblée nationale qui souveraine c'est les députés. mais tant que abrogé wuñu ko c'est le juge qui l'applique c'est pas les hommes politiques qui appliquent la loi d'amnistie. mais l'affaire Oui, on peut le parce que l'OAW il fait l'argent. On a mis tous les événements qui sont liés depuis mars 2021 jusqu'à 23. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans. Alors, la loi est l'argent.